wolof et en français en même temps quoi donc euh, ndax damay yëgle wala ndax damaa waroon tàggoo bu fekkee yëgle la kon yëgle waat lay doon parce que def naa ci conférence de presse au nom de l'UFC def ci conférence au nom du GRAF GRAF benn sous coalition la boo xam ne maay coordonnateur bi mais comme waxtaanaguma ak ñoom ci candidat bi def nañ conférence de presse pour wane ne Macky amul droit troisième candidature xam nga loolu jubóo nañ ci mais bu amul droit troisième candidature xanaa xanaa benn war na am candidat mm-hmm. léegi au lieu ñu jël keneen. bu dul Macky au lieu ñu jël keneen damaa bëgg ñu jël ma donc loolu du du tàggoo du yëgle mais xam sa responsabilité la assumer ko aussi te itam da koy fay waaw wala nga jox mu yóbbu alors euh, léegi candidat la candidature aussi mooy wane ne maa ngi biir benn parce que bu ma génnee ak USC ne candidat USC la USC moo gën a néew moo gën a néew doole benn damaa bëgg ne candidat wu Benno moo tax ma ne candidat à la candidature ba pare may naa bunt keneen ku ñeme na wax keneen ku nekk ci biir bennoo bëgg a def ko man na wax mais su amul ñiy wax ne Macky mooy seen candidat lu ci ëpp du ñu Benno mais APR la li may wax lu leer la de ñi ëpp ne Macky Sall mooy seen li ci ëpp du ñu allié Benno mais waa APR la am nañ ci droit parce que APR parti la am nañ droit de Macky mooy seen candidat mais constitution bu ci àndul nag Macky Sall amul droit déposer candidature waru ko sax def même bu doon ci wàllu moral war na ko rus a def ndax man damaa bokk ci ñi àndoon moom di xeex candidature Ablaye Wade kon lii Macky bu toogoon sax nit jóg wax loolu bu paree daf ko war a nekk ko arrêté ànduma yow ci li nga wax. Niger Niger ba ba ci président ba tollee am na ko ne ko président da nga war a nekk candidat mais ci suba dañ ko tëj pourquoi parce que constitution dafa am doole te kaddu dafa am doole. man bu may jiitee Sénégal bi bis ba ma koy wan gannaaw bëgg naa lu ma wax ma def ko ou bien lu ma wax fekk na ma yéene ko waaye du ma wax loo xam ne wuute na ak li ma yéene donc damaa bëgg nekk candidat Benno Bokk Yaakaar parce que maa ci biir Benno te Benno warut am plusieurs candidats mais war naa am au moins benn candidat bu loolu opposition bi dana jot ci réew mi di bokkuma ci nag ñi seetaan loolu léegi nag bu fekkee Macky dafa war a gestu xool ñan ñoo ko war a doy pour remplacer ko damaa bëgg bokk ca ñooña <laughs> alors euh, donc répondre naa Abdoulaye Ndiaye foofu maintenant euh, deuxième question bi mooy euh, Saliou Camara alors ndax euh, dañ ma disqualifié wala ndax dama sentir lésé rencontre séminaire bu Benno Bokk Yaakaar bi mujj am Macky Sall jiite ko toute la journée fekk naa ko te dañ ma jaawoo te jël naa kàddu ci kanam te moo ma ko jox kon je ne me pas lésé man Macky yoruma man teraanga ju ma am ci àdduna ginnaaw yàlla mbaaxuk sëñ tubaa ak UNACOIS ak yeesal la. kat bu fekkoon am naa teraanga bu jóge ci Macky Sall ngeen dégg ñu ne ma PCA wala ministre wala député wala leneen kon teraanga ju ma am yàlla mbaaxuk sëñ Touba UNACOIS ak yeesal kon Macky defaluguma teraanga waaye xam naa nag yëg na ma nag. parce que loo ma sànni organisé bu ko yëgee dana yebal nit loxoom dina ñëw donc loolu aussi yëg mënu ko weesu mais sentiruma disqualifié sentiruma lésé au contraire maa ngi ci biir Benno di ci animé la ma man di ci def la ma man te musuma leen a contre ba tey ji aussi contre ma leen waaye dama leen wax sama bëgg-bëgg rek am naa droit yéene nag quand même te yàlla mooy maye. alors troisième question bi euh, mu ne wala loolu dafa naa ci tontu naa ci ah am fàtte. ah non waaw da nga ne pourquoi nekkuma candidat USC man candidat USC laa bu yàgg candidat USC laa bu yàgg mais candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakaar bis naka tey ñii ñoo yore USC ak jeune bi dem ki koy ki remplace dafa nekk Paris ñu ne fi mais USC def na ma candidat bu yàgg waaye déclaré wu ma ko léegi nag tey jii nag ma déclaré ci kanam Sénégal gépp ne leen candidat la à la candidature de Benno Bokk Yaakaar mooy war ne bëgguma génn Benno ya Benno Bokk Yaakaar di beru wala may dem ci opposition bi je répète je à la candidature de Benno Bokk Yaakaar su amee beneen leader bu nekk ci Benno Bokk Yaakaar bëgg def ne man na ko def su fekkee amul dama makki gestu su fekkee makki la nag ah dana bari ñu nekk ci benn ñoo xam ne ànduñ ci. am na ñu nekk ci APR ñoo am ne ànduñu ci parce que te ñëmuñ koo wax man nag damaa bokk ci benn Bokk Yaakaar ànduma ci mais ñeme naa ko wax Macky Sall amul droit présenter troisième candidature war na ko war na war na sax kerse ci moom war naa nekk kersa ci moom parce que dama àndoon ak moom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñuy xeex candidature Ablaye Wade léegi nag est-ce que man sama conscience dana dana tranquille su fekkee def naa loolu ba pare tey jii mu ñëw defaat li Ablaye Wade naroon man mu ñu toog di seetaan du ko def voilà du jàmmi réew mi parce que tey bu ne dana déposé coow dana am buñ ko validé coow dana am même bu faloo coow dana am coow yooyu nag day am rek bakkan yu rot léegi nag li ko éviter mooy nee na ni wuy ni non xam nga loolu la wax moo tax man maa ngi bokk biir Benno Bokk Yaakaar ba pare bokk naa ci euh, jàmm gën troisième mandat parce que nee na wuy ni non léegi man nee naa wuy fii ne noo fii